asalaamaaleykum ami téléspectateur de Leral TV et de Leral point net amati na ñu mbégte ak contentement wàccati sur le terrain eh, tey nag comme ni ñu koy defee weer bu jot tey Leral TV dafa daal di dugg fi nga xamante ni moo di Thiès ñu namm dugg ci gox goxaat yi ruq ak ruqaat yi di leen dëgtal ñoom na naka la ñuy dundee eh, jamono ji nag may waxee ñu ngi fii ci kandaar fi nga xamante ni rek moo di garage bi ñu war a jël daal di dem ca Ndiassane ngir séq ak ñoom nag waxtaan loolee waral nag ñu daal di def escale fii nga xamante ni moo di garage bi xool ñi nga xamante ni ñoo di chauffeurs yi eh, naka la ñuy mënee seen activité dama ciy ànd ak ki nga xamante ni moo di Fatima ak Laay ñu daal di dem dégtal leen suñu reportage. fii Kanda bi ñu koy sancee booba man juddoowuma bon booba mën na wax ni sama yaay sax juddoogul mais jamono yooyu tamit euh, mag yu njëkk yi ñoo fi nekkoon boo gisee yooyu ñu tuddee ko Kanda tubaab yi ñoo fi ñëwoon autant depuis temps colon yooyu ñun fekkewuñu ko tu vois ñun li ñuy fekkee daal turu Kanda bi lañuy fekkee. kon su ma la déggee du yéen génération bi ñoo ko créer mais mag ñi la léegi nag tey nag ñu fekk leen euh, ngeen def fii ne amal fi seenu jotaay mën nañ xam euh, ban activité ngeen di yëngatu. waaw euh, man maa ngi fi ñëw depuis 2007 laa bàyyi liggéey dakaar ñëw fii bi ma ñëwee après man na ci moto jakarta yi di ci yëngatu. d' accord fii moto jakarta yi ñoom garage la kon ak euh, ñi nga xamante ni ñoo de clando garage waaw fii garage la woon bi may taxaw fii booba man bi ma ñëwee booba man rek maa ñu doon taxaw fii yore moto bon booba jamono yooyu tamit ah, jëndaguma sama moto bopp moto jàmbur yore woon di ci liggéey mu ci am ma ci am. ba la affaire bi dem ba avancé tuuti ma jënd sama moto bopp bon ñeneen yi ñëw di mu fi fekk ñuy bokk di liggéey ci loolu la ñuy dund nii après nag euh, clando yi tamit am na ñoo xamante ne bi bi ñu ñëwee sax matul at ñu ngi fii ñoom it di ñëw di yëngatu surtout événement yi bu amee dañuy bëri fii borom sereet yi ñëpp ay ñëw ñëpp a ci gis seen bopp daal Euh, mu mel ni nag euh, jamono ji dem beeg dikk bi bariwul noonu ndax seenub gafa jurulu leen problème. no c'est que fois xam nga boo boo yoree moto ni deux fois da ngay dugg Ndiassane génn dem Thiawane jóge Thiawane feneen fu ñu la jël nga yóbbu fii ba Thiès da ngay dem dem liggéey foofu ñëw client da ngay toog fii client bu wàcc mu jël soit muy dem Thiès soit muy dem Thiawane fii ba Pire. ba Ngaay dañ fay dem dëkk environnement yi ñuy wër nii muy njiite yu demee ni kay kër xaali dañ fay dem di ci yóbbu sunuy moto ci la ñuy dund noonu quoi ñeneen yi sax dinañu fi ñëw nag di ci wàll si fii. seen ay heure de travail diggante bi kañ kañ la suba ba ngoon gi wala day dem. waaw presque dañu fi nekk ay huit bu ñu xëyee. huit heures ba huit heures et demie ñu ngi continue di liggéey ba journée continue la ñuy def pratiquement boo koy seet dem añi ji ñoowaat nekkaat fi ba ay dix heures ci guddi ba onze heures tu ñu bare nag wàcc di daal di ñibbi man moom dix heures rek dem naa sama kër. sécurité moom bari woon na fi dans les temps nag. mais léegi yàlla def na jàmm ngi am avancement parce que am na poste brigade booy jàkkaarloo noonu sa ginnaaw gars yi di ko fi def pour mën a yokk sécurité bi et lamp yi gars yaa ngi koy defar panneau solaire yi indi nañ ko ba nii aussi maanaam dëkk la boo xam ni manqué na ci wàllu économie tamit aussi lu bari. parce que dëkk la boo xam ne boo dee xool tourisme foire internationale bi ñu fi waroon a créer mu nekk ci diggante Mali Guinée Bissau Guinée Sékou Touré muy cuub yi karité yi ak affaire yooyu moo nekk ci biir dëkk ba kon yoon la woon ñoom ñu am centre commercial boo xam ne bu mag lay doon bu ko defee dinañ mën a investir benn foire internationale boo xam ne day nekk africaine muy diggante Mali Nouakchott ñoom ñëpp dañuy ñëw boo duggee ci dëkk bi looloo fa am te at ba at lay am te bu amee ci at bi maanaam ñoom bu ñu ñëwee dinañ fi posé wul tolloog 6 mois di doog a dem kon loolu jël na temps kon donc ñoom bu ñu amoon marché centre commercial bu mag doon na baax maanaam dëkk bi bari na woon yu manqué mais léegi alhamdulilah am nañ poste brigade bon station mu ngi suñu wet bon investisseurs yi ñu ngi ñëw am na benn waay boo xam mu ngi tabax fi benn poulailler bu mag ñun ñu fi nekk nag ak euh, clients yi ñun ñoo yor seen kaaraange actuellement. mais du benn agence bu ñu gis mu fiy monté ni ñu yore seen kaaraange ñun ñoo fi xëy 8 heures ba jusqu'à 22 heures. da ngeen fi nekk ba 22 heures ba 22 heures dañ fi. mais yéen seenub liggéey tey ngeen yab ci côté moo moto Jakarta yi ngeen yab client bu ngeen xamante ni xamoo leen ko wala clando ndax du leen jural benn gàllankoor wala amul benn jour euh, ngeen am ci cas. si loolu mënu ci ñàkk parce que àdduna dañu toll ci àdduna bu xam ni ñiy liggéey ak ñiy yàq dañuy bari mais ñun suñu biir ñoo leen di xàmmee. te Sénégal fu xam ne am na lumière bon benn majorité bi dafa taxaw muy jeunesse bu bari dafa taxaw ndoo pendant cinq personnes wala six personnes yoo xam ne ñu ngi daan seen doole ñoom ñoo war a mën a aar fi ñu ne ñooy aar client bi aussi parce que bu njëkk da nga daan ñëw fii pour nga wàcc danaan na lëndëm ba Tivaouane ngay dem garage Tivaouane da ngay fayaat 1000 francs pour doog a mën a ñëwaat ci dëkk bi mais sant yàlla tey biñ nekkee ci croisement bi boo jëlee oto Dakar ñëw wàcc bi 500 francs ngay fay ba biir Ndiassane bu fekkee moto jakarta la yaa ngi fay 200 francs moo lay yóbbu bu fekkee ni voiture nga bëgg am na 150 bu fekkee sareet nga bëgg am na 100 francs kon avancement mu ngi am li ci des kañ mooy maanaam panneau solaire yi nga xam ne moo war a jaar ci route nationale yi ak ci yenn arrêt yi nga xam ni ñoo am ci dëkk yi juste arrêt yi nga xam ne villageois yi bu ñu wàccee dañuy jël ay sareet ak affaire yooyu foofu dañ fa war a def ay solaire pour muy leer ndax a yor seen kaaraange waaw. mu ngi noonu ami téléspectateur ñoo ko déggandoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci garage Kandar nekk entrée Ndiassane ñoom nag seenub activité ñu ngi koy mëne jamono ji mu mel ne nag garage la boo xamante ni biñ ko sancee yàgg na waaye yàggul waaye ci seenub kàddu rek ñu xam ne fii ci kandaar dëkk la boo xamante ni yàgg nañu ko sos ay tubaab ñoo fi daan ñëw eh, daan rek def seenub liggéey ci lu ñu mën a jàpp nag ci seen activité te muy jafe ci loole na ci li nga xamante ni moo di éclairage public bi doyeewul noonu ba tax na rek ñoom tamit ñu ngi sàkku rek ñu dimbali leen ci euh, côté boobu ba ñu mën di mënal seenub liggéey euh, ci euh, esprit bi nga xamante ni daal na maanaam ci xel bu dal ñu ngi leen di jaajëfal nag di leen jox nag dig daje ba tey fii ci cees lay doon waaye itamit ci beneen gox ak ci beneen sujet bu ñu war a waxtaanee.